je pense que euh, Aliou Cissé dafa def en fonction de ñi mu yaakaar ñi mu tàmm di liggéeyal ak euh, def ay touches yoo xamante ni peut-être dina euh, compenser si yenn secteur faible yi ñuy wax ci équipe nationale parce que soo seetloo daaw après coupe du monde bi ñëpp ngi doon wax le débat amuñu par exemple koo xam ne day exécuter ay coups francs voilà c'est dommage que on a autant de coups de pied arrêtés mais on les exploite pas quelqu'un comme Henri Saivet man pour man il a une palette technique large c'est un bon milieu de terrain mën na football te ba pare am na cet atout-là de plus de tirer les coups francs donc peut-être loolu indiwaat na ko côté gauche bi Saliou Ciss je veux dire euh, tey sur le côté gauche on a des soucis wax na ko joueurs yi ñu ci am souvent ils sont blessés ils sont pas réguliers Saliou Ciss moo si tane peut-être moo si kii joué instant yii nii xëy na tamit joueur bu am cofeel la ci moom parce que joué woo woon na ko ci coupe du monde bi malheureusement ce qui s'est passé s'est passé mu dem tey joxaat nañ ko beneen chance mais encore une fois bien que wax na ni que gauche la bëgg à gauche quelqu'un comme Sabali aujourd'hui mi ngi joué euh, ci poste boobu pour man di joxe satisfaction entière satisfaction mais peut-être par mesure de sécurité mu indi backup teg ko foofu pour que voilà au cas où en cas de pépin et autres parce que football moom da ngay toujours sóoraale li ñëwagul mais c'est une liste assez équilibrée ay joueurs yoo xam ne miin na leen depuis 2012 am ay cadram may wax y a les meilleurs performeurs de la saison les meilleures individualités du Sénégal donc c'est une liste aw ma ci dégg-dégg on va juste faire le constat et s'en réjouir parce que gis nga loo xam ne la depuis quelque temps mu ngi ñëw di ñëwaat chaque fois première nation africaine c'est voilà c'est un classement mais sur la compétition classement bi c'est pas ça qui fait la différence euh, bi ñu dem coupe du monde Belgique moo nekkoon numéro un dañ dem demi-finale lañu arrêté donc bon ça c'est des choses yoo xam ne da lay yokk doole rek may la encore plus de confiance mais le match il va se jouer sur le terrain donc faudra faire très attention et euh, se battre jusqu'au bout Euh, Mam Fatou, aujourd'hui le Sénégal, euh, on peut dire, est arrivé à son apogée, quoi. La génération Sadio Mané, les Idrissa Gane et les Kouyaté. Est-ce que ce n'est pas la vraie dernière chance à cette génération de remporter une Coupe d'Afrique man de lu ma gëm bëggëm mooy euh, effectivement équipe boo xam ne la am na maturité parce que jouer benn ñaar dara dugg sa ñetteelu kan forcément am na expérience boo am te li ma leer ba leer joueurs yi aussi sooy waxtaan ak ñoom seen bopp euh, xalaat nañ ni yenn erreur yu ñu leen doon def wala yenn difficulté yu ñu doon am duñ ko amaat après nag compétition dafa doy waar parce que lu ñuy wax football reenu ñaam bi la kenn xamul fu muy demee mais je pense que ni ñoom am nañu motivation bi am nañu envie bi jël nañu expérience aussi par rapport ak seen championnat européen ak aussi CAN yi nga xam ne moom lañ doon euh, jot a def léegi nag il faut que ben match bi ñu ñu ñu monter en puissance daal mun nañ commencé nànk mais di yéeg di yéeg l'essentiel mooy nañu yegg si au bout nañu yegg si si cëppaandaw ba les moyens seront pas toujours évidents du match yëpp ñooy nar a yomb mais on espère que avec le collectif ben on arrivera au bout voilà